rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 12 juin 2020 ñoo ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko tey mu mel ni ki yëglikaay bi nag tey moom rëg-rëg la ñu xëy tey wan moo xam ne nag am dëndam la xëy samp ko yëglekaay bi nag ñëw na ci moom ci koo xam ne 2012 moom débuté ba tey daal maanaam mbirum defet moom daa mel ni xamu ko wala mu xam na mu mel daal loolu la sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu ko ci carrière ba daal déggal yëglekaay bi nee na 13 victoire rëg am na ko ci ak li nga xam ne mooy ñaari sans verdict maanaam muy kees combat yëglekaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw andil ko mu mel ni ki nag li am ba des daal yëg-yëg wala boog rëg-rëg yëglikaay bi ne li des day maanaam ci affaire moom li ci garaw mooy mbirum mystique lu mu farataal te itam daal nekk na ci mbir moo xam ne ni fa mu ca taxaw fu wóor la suñu làmb mooy wax du sama ay wax wàllum doole tamit yëglikaay bi ñëw ne la mu ci am tamit macha allah mbër la moo xam ne daal fonk na entraînement ba nga xam ne ni moom doole yóbbul ko ko dafay jafe lool mu seqee ak yow yow bés mel ni ki nag yëglikaay bi indi na ci ay seere ndax na ku weddi laaj rëg ki nga xam ne moo di Gris 2 wala Elton ñoom ñii ñëpp daal ku ci ba ngay jàmmaarloo ak moom yaakaaroon nañ ci wàllum doole mu am lu mu ñàkk waaye na bañ ca yéegee day daa mel ni mbir feeñul suñu làmb xëy tey ñoom wax ñu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne moom ci lamb la nekkoon def ci lu doy doy waar yàlla jël ko ñu ko ñaanal yàlla njëggal ak yërmande muy Abdourahmane Ndiaye Falang yëglikaay bi cent cinquante de combats def na ko maanaam téeméeri combat ak juróom fukk ak ñaar am ca lu tollu ci 150 victoire yëglikaay bi di sunu lamb wax nu ko téeméeri victoire ak li nga xam ne moo di juróom fukk ñaari defet dong wala ñaari yoon la ca ñàkk. moom falan lees mas ta wax ci moom daal yëglikaay bi wax na ko ne na nekkoon numéro moo xam ne ba mu cay toll talaam foo takkoon weesu na ko wàllum fecc tamit am na la mu ci mënoon bu baax a baax nekk mbër boo xam ne bari soo man la ko yëglikaay bi tudde woon ba tax na tamit yëglikaay bi ne na mook batëram bi daal seen ab diwo moom neexoon na ba yegg ci lool moom mi nga xam ne moo di falan waaye tamit kaseem bi gën a rëy yëglikaay bu ñëw na ci maanaam ñeent fukki junni mooy li gën a rëy ci mbirum kaseem mel ni ki amoon na xarit boo xam ne tamit moo jiite woon réew mi ñu koy wax Abdou Diouf di ancien président ba waaye moom nag mu nga génn àddina ca ba muy am juróom ñeen fukki at ak ñett maanaam 93 ans daal ca la génn ca la bokk ba mu ko amee ca la wuyu ji boromam moom falal suñu làmba xëy ñëw andil ñu ko keneen koo xam ne nii moom ab xale la nekkoon écurie Fass jóge fa te léegi mu nekk écurie Bawol ñu koy wax ki nga xam ne nii moom moo di Ibou Fass léegi nag mu nga Bawol mbooloo moom daal na nekk nii pare na ngir jàmmaaroo mbër ma nga xam ne moom la ñuy wax Farou Diagne ak keneen koo xam ne daal jàpp na ne làmb ja boole na leen moom Ibou Fass daal yëglikaay ba xëy na tey seq moom ay wax mu wax fa wax ju mel ni ki noonu Saliou ba moom la mu xëy di wax le daal Saliou ba mu Pikine daal wala bu sax nee na daal li am daal CNC ci boppam daal moo ñu war a dimbali dimbali nu ngir yàlla ak yonante ba zaal ne na ñu ne ko ci leen di dimbali mu ne mbirum arène nationale bi la ñu war a lijjanti régler ko zaal moo xëy tey ñëw duñu wax lu mel ne ki keneen koo xam ne wala beneen yëglikaay boo xam ne moo di record dañ fay dem rëg-rëg ma ñu ubbe woon ci sunu làmb mel ni ki nag yëglikaay bi ñëw na ci moom rëg-rëg moom record rëg la muy wax wala la bëgg daal diggante ak tafaatin daal daa mel ni ba tey mbir ma moom mu nga ca taxaw tepp abu ndur a xëy tey ñëw andil ñu lu mel ni ki noonu ba tey yëglikaay boobu di record ay sa satu fay Leewtoo TV la ne wala Leewtoo point net moom itam mu nga joxe tey ay affiche am ya nga xam ne daal jàpp na ne ci lamb bés ku tëggee dana neex ba yegg ci lool jàppal tafaatin boroom taq ci rib la jàpp ne ak bombar ji seenub ramas du luy mën a ñàkk waaye Malick ñaa ngi rëg-rëg tamit jàpp na ne làmb mënu koo dàq amaak moodu moom nee na moo cay dàqati sax te booba moom manes na ne itam lu taxaw la loolu la ñu xëy wax moom ay satu leneen loo xam ne gis nañ ko fa nga xam ne moo di ca record jàppal caaka fay moom li am ba daal Maroc da nga xam ne demoon na fa ngir ay stage moom ak ka nga xam ne nii moom la fa àndaloon moom mi nga xam ne mooy caaka fay di anta sàmm daal ñoom ñaar corona ba tëj leen fa caaka nag daa mel ni Maroc mu ngay bëgg a neex ci moom ba am na lu mu xëy di ko wax caaka ne ne day fi mu nekk nii moom mu nga Maroc waaye daal daa mel ne cafkaay Maroc nga ko bëgg a dugg moom caaka fay ba tax ndax ne na jabaram daal bu dee am na ku mu nam fi mu nekk nii jabaram dong lay doon bés ko ko mënoon a yónnee ca Maroc moom ne na kon day gën a toog daal di gën a daal waabale gën a gis boppam ndax réew ma neex na ko lool moom caaka fay yëglikaay bi ñu la ko war a xëy wax ñu ko mel ni kon yàgg maar caaka la mu yëg Maroc neex na ne na kenn la nam mooy jabaram bés ko yónnee woon jabaram dana gën a mën a toog ràcc ca biir Maroc caaka wax dëgg. salaamaaleykum ñu suivre Leewtoo TV ñu leen ñëw baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm di leen baalu àq ci di leen baal àq ci àjjuma ji di leen ñaanal jàmm ju sax ñu yàgg koo teewe incha allah ginnaaw bi Babacar defee li nga xam ne nii mooy euh, revue de presse bi dañuy daal dem ci li nga xam ne nii mooy jàngat bi Babacar noonu naa la. Aïssa lay fay mbaa ngi si jàmm naka àjjuma ji. Babacar ana mask bi. waaye masque bi Aïssa daa dagg kii baa dagg li koy jàpp nii. loolu day dagg suñu maire ñu ko jox nag suñu maire commune Alioune de la yëpp day dagg xaw ngi lay béggee bu baax a baax maire da maire Dakar Plateau bi ma dëkk kon après balaa ngay dem nga lijjanti beneen masque daal takk parce que ah, wax waaw dañ koy non déet mooy yoon sax nañu war a takk ay masque parce que xam lu tax euh, luy wàllee moom koy tax mu favoriser wu di wàllaate dañuy def lay taxaw du yegg si quoi parce que moo gën a wóor parce que lu la waaye mën a wax moom feebar amul ku ko ñemee wala ku mu arrangé du man du yow du keneen kon yàlla nañ ci yàlla musal ñi feebar tam yàlla nañu wér waaw. Amin Babacar ñu dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan bi dem ci sunu lamb fekk ki nga xam ne mooy Reug Reug sunu lamb tey ñëw ci parcours am ci invincibilité am boobu léegi li muy dégagé wàllu mystique ak yeneen ak yeneen waaye nag day laajte kenn mooy résoudre équation Reug Reug ndax mel na ni jaaxal na waa lamb ji. ku koy résoudre équation maanaam baatu olof mooy kan moo ko mën a kale taxawloo ko daan ko. waaw loolu day damaa yaakaar ne mbër yi pour man ñoo ko war a mën a def ñi mu waxal jamono ñoo war a mën a def lu ko daan parce que moom li tax daanuwul du lenn pour man lu dul fonk na lu muy def man na bëre macha allah te itam dogu na ci yooyu nag boo ko boolee mu jaral la xam nga lu mu mën a doon ay sa ci àddina boo ciy yëngu ah bëgg caa dégg waaw góor wala nga bëgg caa dégg daal yi da lay jaral la mbir ma bëgg nga di ci xëy subaak ngoon la muy bañ nga di ko sori pour man loolu actuellement ci yoon boobu la nekk nit nag xëy nag am na fi ñoo xam ne ni moom la ñu mel bés dina ñëw bu seqi ñu bés xëy na bu fekkee daanu la ñuy xaar su keroogee wala boog ñu jàpp ne ñu war nañ ko mën a feree ñu xool ba xam waaye loo ci mën a dégg daal nii mu nekkee moom bu ci nee néew ma deesu ko daan de waaye ku ku bëgg daan moom def ni mu def moom ndax mbir mu ne bu la téye ah boo ci bëggee dara wala nga bëgg caa def lu kenn waaw daf lay jaral la mu jaral boroom rek waaw. waaw euh, Babacar dañuy continuer ba tey des ak euh, lamb ji dem euh, fële suñu lamb nag di wax ci li nga xam ne ni mooy reprise bi wala bokk fin de saison bi nu muy demee mais nee na suñu mel na ni CNG ñoom état la ñuy déglu fu mu toll nii dañuy reprendre wala dañuy arrêter carrément. état de moo war cëggal guyam fi nekk ñëpp moom la ñuy déglu waxuma sax lamb ji waaye réew mi ci boppam état la ñuy déglu. kon nag état bi comme moom la ñu dénk CNC bi amuñu leen lu ñu mën a def lu dul déglu ko ah, ba xam ndax moom day yokk saison da koy bàyyi mu continuer après wala da koy tëj pour de prochaine euh, saison wala boog année yi ñu jëm li am solo daal mooy nañu xool li gën ci réew mi rek état daal li ma leen di man Babacar mooy lépp lu ñuy jël muy ay décision nañu xool lan moo ci gën ci réew mi gën ci askan wi parce tamit état du kenn ku dul ñun maanaam nde Aïssatou Faye la ñu teg fii moo jiite réew mi waa réew mi ku dénk kon la muy doxal mook ña mu collaborer ci ay ministre rek ay DG war na mën a bëri ki nga xam ne ni moom Tapha Tine parce que kooku nag am na droit tànn ay adversaire waaye moom tamit am na droit ci duñ sa avocat na a bëri. Reug ci ñooñu la bokk. même bu a ci kaw lay fekkante yaa ngi dégg Tapha moom tey ci làmb Reug Reug am na droit ne dama bëgg a moom parce que li ko waral mooy am na lu Tapha Tine def ci làmb am na vainqueur yu mu dajeel bokk tey ci mbiru yaa ngi dégg defe moom en tant que mbër bu bëggee ne tey daf ciy bokk il faut mu jéem a dëkk ñooñu bés ñoomu bëri ak waaye loo ci mën a daal xam naa ne ñoom ñaar seen diggante bëri na coow trop trop trop trop trop diggante ak tafaat waaw noonu euh, la lan mm. euh, moo baaxoo coow noonu la nga waxee rek. ñu dem si naa comme ni ñu koy waxee ci la ci ci ci ci ci samay langage su bopp waaye man dama lay a ab mm-hmm. ma Aïssa tey yow yow ci la ko wax Aïssa bu ma la la newoon tafaati ak ba mm-hmm. ko waxee ab noonu ne décision médicale la ñu woon. Mm-hmm. ñu daal di nangu combat bi ay bi daal di koy def ndax a. boobu war nañu ko bëriwaat. mu am. génn li ñu xam combat bi tey dañu leer. am na solo ba tey dama lay laajal ay sa Malick Niang eh, ki nga xam ne mooy na ci nekk na champion ma parce que seetaan naa ne ñëpp ko ragal. bien sûr bañ koy jox amaat rek. lu leer nga waaw kon kooku même bu amee defet biir ci làmb war na defe daal. Mm-hmm. kon tey jii doo ko joxee léegi rek nattukaay la ci moom nattukaay la ci Reug Reug comme ñoom ñaar bu ñu bëree fu nekk dinañ xam ni tey jii Reug Reug suñu daanee Malick Niang tey kon ñi koy bañ ñëpp waxtuñ ko mën a bañ. am na solo. Malick Niang bu daanee na dellu ci laam am na solo sa amam. waaw am na Modou comme ni ma ko expliqué nekk na ko mbaa boo xam ne lig dugal na xaalisam jox ki nga xam ne mooy Ama Baldé mais gis nañ après trop trop di topp ki nga xam ne léegi Ama téye na avance mais moo dugul avance accord de principe la joxe est-ce que bu trop trop si changé wul situation bi décompté ce que dina ko xaar beneen question bi noonu. mu mënti xel mu bi na jël Ama boole ko Modou. parce que lu ñuy am na solo ay sa yal na ko yàlla yal na yàlla na def combat yi nga wax ñe yooyu taxaw mm-hmm. waaye bi ci des ñu mën a amaat tamit yal na continuer di mm-hmm. mu ne mm-hmm. parce que tamit bu a ko ñaan moom lig ni ko lay yal na ko yàlla génne foofu mu bépp doomu aadama parce que nit bi nga xam ne nii ku bokk ci mbir yi boo gisee nag ma laaj la laaj bi dafa am lu père Max Mbargane di wax dafa am kàddu bu muy faral di utiliser nag wa dee na nag wa dee na ñu ne fa mu dee il faut nga préciser nag bi tool bàyyi diw la ndax tool ay la dee wala tout le mouvement daa jar di wax comme yaa wax wax bi day baax yow nga leeral Sénégal yi tax nga wax wax ji mm. waaw ay sa noonu la demee Ababacar ah, dañuy daal di jeexal ak yi nga xam ne ni mooy Leewtoo point net ñu fekk fa ki nga xam ne ni mooy Dieudj Dieng tey nag euh, mu nekkoon noonu procès mu ba def tribunal mm. mais bu ñu demaatee tam nañ euh, ci suba la yaakaar naa ne tumu fan moo fa dem mm. kon ñu ngi ñaan yàlla rek nga xam ne ni moom moo mën tey dogal yal na yàlla def comme àjjuma lañ ko war a envoyé ramp lañ ko war a àttewaat yal na yàlla buñ ca yeggee jàmm bi ñuy tegg ko ci kawam parce que ñun bu ma def ko ñaan parce a ko wax bi euh, tax ay mbokk la parce que ñoo bokk bi yar ma ko waxee moom yaakaar kon ko ñaan yàlla loolu teggee ko ko te itam yàlla mu tënk ko ci ndog yi ak bépp doomam parce que nekk nañ nga ne daal euh, yaakaar naa ne milieu mu ne moom am na tey yaakaar na nga xam ni ci yëngu yaakaar na ko ci moom mooy bépp jéem di ñaanal tamit personnes yi nekk ci kaso yépp képp ku ca nekk rek te méritoo ko yàlla na la yàlla génne foofu mm. ak ñi tëdd parce que tamit àddina moom loolu am na dee day am saa yu xëy feebar day am dem kaso day am ngént day am ceet day am lépp suñu borom ko fi wàcc bu ko neexoon yëpp du am waaw. Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm di ko saako si ñoom di ko di ñaanal àdduna bi jàmm di ñaan yàlla teg bi ñu li nga xam ne mooy coronavirus bi ba ku nekk dem ba say activité. waaw bi de moom lu ci mën a dégg war na xaw ma sax a sax conseil. dem na war a mhm. nga lii nga takk nii xam nga manqué la léegi maa ak seetal xam nga lan bu nawet ah, ba ñax mi sax ak nit affaire yi ba yi fii génn war a dem ci tool yi di bay léegi xam nga bëy bu noo jotee dañ leen di yëwee ak xar yeeg yooyu ñu wët di dem kenn du téye kenn mais bu loolu génne nag ba gàncax gi sax léegi nag boo yeewi sa jur dañu ay pot loolu la ñuy yu ndaw defal leen ko solo leen ko ci seen gémmiñ yi pour bu ñu mën a wutoo jàpp nga dem yeew leen ci ngooy looloo tax ñu naan seet la waaw lii ay sa takk kon ñu ñaan yàlla eh, ko naa ah, <laughs> ah yow masque nga seen léegi na li may ndax bu ñaan la dëgg ñu ngi nuyu nga xam ne di leen ñaan ak jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm xam nga yàlla taal ko xoli comme ni ko moom tam am doon ñaan rafet na waaye ndeysaan li ma ci métti rek mooy bi ñu bee bu ko sumee <laughs> du yàlla may bool soxna loolu rek laa koy ñaan non boobu da ngay déborder.